asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey ñu ngi fii ci Daarul Xuddoos ci tokkooru Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mu tombeek la di ñaari fan ci weeru muharram wi nga xam ne moom la Serigne Mountakha xalifa général de Mouride joxe ndigal ngir ñu amal fi ab liggéey Euh, ànd koog mbooloo moo xam ne dañoo jógee ci yeneen gox lu mel ne Mafatul Bisri Safinatul Aman ak euh, daayira bi di waa wilaya euh, muy njàngum xaside mi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndigal ñu war koo def ci la onze bi incha allahu rab te fas ko yéenee ànd ak mboolem jullit yi nga xam ne dañoo aju ci xadim radiyallahu anhu boo ko defee fii fii tokkoor bi nag ñu ànd fekk communication ngir ànd ak ñoom ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal boo ko defee kon ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def rek daañu dugg ci mbooloo mi xool ci jëwrin yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi ngir am ak ñoom ay waxtaan boo ko defee kon ñu dugg ngeen ànd ak ñun ñu mën a euh, nekk ci liggéey bi bisimilah. waaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu baax baax di leen ziar man maay Cheikh Diop Kellel di président comité directeur wilaya jeune bu Touba waaye itam di président section Touba itam. ñu ànd ko ak wilaya femme bi nga xam ne soxna Ndeye Mbacke Gaïndé Fatma moo ko jiite ak soxna Fatou Khary Lo ñoo nekk fii tey ci tokkër bi ngir taxaw liggéey bi nga xam ne moom lañuy sëriñ bi dénk muy sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. dafa mel ne sëriñ bi ni mu wootee ku ko dégg li nga xam ne bëgg na mbooloo yi daje mbooloo yi ànd maanaam nit ñi ànd mbooloo yi ànd lu ko ñor la loolu dafa bokk ci ab liggéeyam. moo tax suñu Ousmane bi nga xam ne moo jiite organisation ci fédération bi moom dafa teel a dégg loolu xam ne moom ni woote sëñ bi ni mu woote dafa bëgg ñu ànd doon benn moo tax bi woote bi jibee itam dafa daal yebal waa Hizbut Tarqiyyah ne neen dem waxtaan ak waa wilaya ci bis bi ngeen bokk nas loolu itam waa Hizbut Tarqiyyah def nañu ko ñu ñëw ñu toog waxtaan bokk nasandoo bokk tënkandoo loolu di am solo itam Ah, sëriñ bi itam woxoon na kon woote bi nañ ko yaatal buñ ko xatal moo tax ñu woowoon mboolem euh, kuréel yëpp rawatina ñi ñu bokkal pencum Cheikh Mamadou Moustapha waaye kuréel yi nga xam ne itam ñoo bokk yoon wi bokk kër gi woote boobu itam sant nañ ci bu baax a baax ndax mel na ne kuréel yi wuy si nañ ci itam ndax jataay bii boo ko xoolee di nga xam ne ay kuréel yi wuute ñu ngi fi ndax waa Safinatul Amaan muy boo xam ne nii Kéré Mbaye la nekk ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoo àndoon ak ñoom réunion yëpp ñoo ko bokkoon di tenir waa kuréelu ñetti guddi Ndakaaru jóge ba Ndakaaru ñoom itam ak fépp ci réew mi itam ñoom itam ñi ngi ci barab bi ñoo ñoom ñoo ànd liggéey bi yi doon amee ñoo ko bokkoon doon tënk di nas naka noonu itam waa Mafatihul Bichri ñu kuréel goo xam ne dañ leen a gën a xam ci jàng xasaayit ñoom ci wàllum njàng lëkkaloo nañ ci ak ñoom. ba fi may wax ak li ñu am ci ay kuréel mën na ñaar fukk ak juróom yoo xam ne nii ñi ngi jàng diggante kër Sëñ Ahmadou Mbacké Tindodi ak bayit yi ak mbaar mi ñoom itam ñoo bokk liggéey bi booba léegi ñoo bokk nas di xalaat kon ñetti kuréel yooyu ak wilaya muy ñeenti kuréel yoo xam ne yu mag la ñu ngi fi ci bërëb bi ànd liggéey waaye ñi may jàkkaarloo itam waa kër Sëñ Ibra Absatu la di lan ci buntu kër Cheikh Mamadou Moussa yi naka noonu waa islaamu daare ñoom itam yowal nañ fi ay ndaw kon dafa mel ne kon liggéey bi ànd nañ ko ak ñëpp ndax xëy na ànd gi ñëpp àndandoo gi ñëpp noonu la suñu bëgg waaye ñi mën a àndal ànd nañ ak ñoom moo tax si Ousmane waxoon li ngeen def lu am solo la ndax lu jafe la ndax ay kuréel yu mag mën a ànd nasandoo di liggéey loolu loolu du ndaw te itam loolu mooy li sëriñ bi bëgg itam mooy ñu ànd liggéey doon benn loolu la jàpp naa ne ci tënk mooy kuréel yi nga xam ne ñoo fi bokk nekk di liggéeyandoo waaw xam nga sëriñ bi itam bi mu wootee dafa am lu mu yëkkati ci lam li mu nag joxe li mu ceeg joxe bëggoon a yëkkati li mu xaalis joxe euh, sëñ Youssou jub ma fa newoon ne ko nag dañoo bëggoon li nga xam ne moo jël ci wàllum dépense yi moom yu ndaw ndawaay yi nga bàyyee ko donge loolu moo waral ba loolu am itam teel nañoo waaj ci ne ñun liñ ñu indil lu manqué rek ñu matlu ko euh, alhamdulilah jox indil nañ ñu ceeb indil nañu ay nag indil nañu itam sama xaalis boo xam ne nii euh, ñaaram wutaat nañ ko teg wala ñettam. ndax ñi ngi liggéey te pareeguñu kon dafay mel ne mbooloo yooyu ma tudd léegi bi ñu dajee dañu ne xam ne kenn ku nekk lu mu am na ko indi wilaaya indi li mu am safinatu inaam indi li mu am mafatihul bisri indi li mu am waaye kuréelu ñetti guddi Ndakaaru itam indi li mu am taalibe itam di indi li ñu am waaye yemuñ ci itam ñu wax ne kenn ku nekk itam li mu am ci matériel te mën koo jaayante na ko jaayante kenn ku nekk itam lépp loo xam ne jumtu am na ko ci jumtukaay te na koo jaayante na ko jaayante moo tax daanaka ñii joxe nañ seeni i oto eh, ñii jaayante nañ galaas gi ñi jaayante nañ ndox ndugg mu tooy mi ñoom far waa kuréelu ñaari ñaar ñetti guddi Ndakaar yi ñoo ko jaayante eh, ak boole nag yëkkati suma xaalis kenn ku nekk ñoom boole ci li nga xam ne moom la waroon demee marché noonu lañ ko def ñu dajale ko ñu ko dajale mu mat ñetti li nga xam ne moom lañ ñu joxoon kon lañ ñu joxoon teg na ci lu man ñettam nga xam ne moom la ñu comité bu mag bi joxoon ngir lépp mën a mat te gis nga ne itam dépense yi des na ba léegi même añu démb rek. nga xam ne dem mbooloom bari moo fi yandu section tubaa ñoom ñoo ko gàlloo nga xam ne kuréel yooyu moom ginnaaw ñun lañ fekk si ñu war leen a añal dañoo wax ne ñun ñoo koy gàddul suñu bopp ñun ñoo koy jaayal suñu bopp tam ñu ànd ko ak daayira yëpp kenn ku nekk def ci ñaxam loolu moo waral tey alhamdulilah yëf yi mi ngi dox loolu nay jafe-jafe mënta ñàkk waaw mesure barrière yi nag bokkoon na ci préparation yi soññee nañ ci ci appel yi ñu doon def ñu ngi ko ci mboole yi waxoon nañ sax ay masques yu ñu jënd waaw mais mesure barrière yi normalement Eh, dañ ko war a respecté waaye nag jafe na lool lool lool lool ci mbooloo mi ngi ñuy respecté loolu nag jàpp naa ne ah ak xel la rek ak yaakaar suñ si ba ak wóolu ko ak itam am conscient ci ne lii sëñ bi digle itam benn loraange duñ ci fekk mais mesure barrière yi moom ala kulli xaalin jëwriñ ñi santaane nañ ko kilifa yi santaane ñu xam ne daal fii mi ngi dox bu baax a baax ndax depuis six heures du matin taaloon fi ñuy wax ñu ne sóor nañu dañoo bëgg onze heures ñu commencé dënale incha allah ngir nit ñi teel a xewlu ndax xewal yi loolu rek moo tax ñu di ko def bu defee fan fu nekk lañ fa war a yóbbu ñu yóbbu ko nga defee sëñ bi 5 heures la wax ne fii la yëf yi war a bu ñu àggee ci 5 heures ci bu ko defee kenn ku nekk mën a yeewee ko kon ñu leen sant bu a baax di leen gërëm di ñaan yàlla mbooloo ñu dimbali asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di saabra bu baax te jëndoo seen wàccuwaay bu baax a baax ci liggéey bi ah, te di xamal ne daara ji ñu nekk nii mooy daara Mafatihul Bichri kër si Ahmadou Tindodi ah, ñu gën koo xam ci ja daara ji jàkkaarloog li waaw loo xam di mu ko Seex Ahmadu Tindodi ñoo nekk ci liggéey bi xam si ne moom la moom la Seex Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassirou ñu ko ñaan fan gudd loolu ànd ak wér gu yaram ak tawfeex liggéey mag bi xam si ne moom la digal waa ahlu xasida ñu nekk ci fas yéene ci liggéeyal ku ñun nag ñu féetewoon ci restauration ma Fatimul Bisri loolu bi liggéey bi amee nag ñu ànd ko waa wilaya ak sa ak Safinatu Amaan ak euh, ñaari ñaari guddi raak ñaari ñaari guddi Ndakaaru yi ñu boole benn benn sélection boo xam si ne ñun ñëpp ñoo ci bokk nekk taxaw ci liggéey bi xam si ne mooy li nga xam si mooy mooy restauration jëm ci wàllu xéwal yi nga xam si ne moom la sëñ bi di di di digal pour ñu war koo def ci liggéey bi noonu lañ fi taxawee. jërëjëf ci laaj ci laaj bi maanaam mbir mi dañ koo dox ay ay ay ay ay ay ay bis yu bari ba ginnaaw ba sëñ ba joxe ndigal ba tey ñu ngi ci jëriñ ñu ngi ci daje di def ay waxtaan ñu ngi xool ba bis ba jag fi mu toll nii ñu ngi nii fi mu nii maanaam fi mu toll bu du woon euh, bu du comme comme comme comme déguisement yi ñu sol nii mënoo xamee kii la bokk wala kii ma faati bis rek la bokk ba nañ ko ba sax ba ba ci waañ ba ci waañu ni ni ni ngi doxee nekkul ne dañuy jël euh, ñenn ñoo xam si ma faati bis lañ bokk na leen li ngeen koy bokk déedéet boo xoolee dañ ko sélectionné ci lu ci nekk dañ am ko bokk wilaaya am ko bokk ma faati am ko bokk sabtu amaan kon nag loolu maanaam dafa nekk dafa nekk nos boo xam ne dañ ko nos avant lii jëkk ñu jëkk rek jaxasoo rek ñëw rek di togg nga nekk lu neex déedéet dañ koo sos ngir nga xam ne kat ñëpp benn lan ma wilaaya ak ma faatiwul bis rek lépp bu nekk dañ xool cin lu nekk fekkante ne quatre fa nekk wala cinq personnes ñu xool ne kat kii na bokk wilaaya kii na bokk saventur euh, aman kii na bokk ma faatiwul bis rek kii na bokk ñaari guddi Ndakaaru nga xam si ne noonu lañ sélectionné liggéey bi fas yéene ko ànd ak ñoom ba ak tawféex gu mag a mag mag mag sax ndax ku a ku xam na ne bisu xasida moom boo ko ubbilee waa ahlu xasida dañuy maanaam digal nga leen lu lu lu lu set seen xol te dépp bi mu ko waxee ba tey ñu ngi ci di waajal ci wàccaay gi nuñ koy def ba fi mu toll nii tey ñii boo demoon ci penc xam ne mboolem bund kër bi li ko wër am na ay kuréel ma fàtte bis yu fay jàng ba ci ba ci biir mbaar mi noonu noonu la liggéey demee waaye ñun ñi nag dañoo bokk ci kuréel ba waaye tey jii bu leen fekkoon li wàllu xam ne gi ne na fa na fa xasee njàng may dunde kuréel maanaam toll na ci huit kuréel yoo xam si ne maanaam Touba Touba Touba Touba gi rek am na huit kuréel ak ak ak yi ci régions yi Dakar Mbour ak ak Thiès ak Louga te ñun ñëpp ñëw nañ kon loolu maanaam bi ko sëñ bi waxee moom ñu boobu lañ daal di jaajaay yi ñi nga xam ñu féri ci wàllu njàng mi ñu gën leen a xamal ne leen mbir mi moom suñu mbir la ndax ahlu xasida moom bu sëñ bi andi bu sëñ bi andee ndigalul xasida bisul xasida moom ñun ñun boobu la jëwriñ daa jug taxaw rek nañu aj lañ ci liggéey bi ah, di leen sant bu baax te di ñaanal bu baax a baax a baax yéen xam li ngeen bëgg seen liggéey bi nii yàlla na leen ko bis bisu bisu tay bi xam si ne bisub ñaan la bisub bisub njégal la bisub bisub tawfiix la bisub xewal la yéen xam li ngeen bëgg seen site bii nii yàlla na dem ba nekk télé bu mag a mag boo xam si ne dañ koy dégg ci àdduna bi yëpp te rafet na lool ndax bisu tay bii nii dafa nekk bis boo xam si ne bi ko sëñ bi diglee bu nekk daam lu sa bopp daa am lu yëg si yow loo xam si dafa lay leer na lu lay soññ la kon nag ñi ko ñaanal bu baax a mi xam ne si ne mooy aji may liggéey sëñ bi nii ñi jot ñi jot ci ku teew ku teew lépp ñëpp xam na ne maanaam xel ak xol mi ngi tubaa waaye sëñ bi yërëm ñu ak bëggal ñu loo xam si ne day toofeex ci ñun moo tax mu ne koo xam si ne amoo amoo jotu mën a ñëw defe ko fa ko mane fa fa nga ko fa nga nekk nga xam si ne liggéey bi day yaatu kon nag loolu ak nga xam si ne ak ak jëriñ nga xam si ñu ñu man liggéey bi restauration bi soxna yeeg ñëpp ñu leen sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaanal jàmm ak tawfeex xewal na Ahmadou Khadim jërë ngeen jëf